asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokki Thiès man Ibrahima Macodou Fall seen doom moo fas yéene waxtaan ak yéen ci élection yi ñu jublu tànn njiitu réew lu rëy la ëllëgu Sénégal daf ci wékku ëllëgu xale yi daf ci wékku jàmm ci senegaal daf ci wékku taxawaayu senegaal ci bitim réew ci àdduna bi yépp def ci wékku kon nag képp ko war a bokk ci wote bii ñu jublu def ci am warugar tànn njiitu réew wékkuwul ci parparloo rekk dañu ci war a dem ak xel te jiital njëriñu senegaal bi ñu bokk man nag ibrahima ma ko du faar mi ngeen xam ne ci mbirum développement rek lay yëngu jiital ci sénégal ci lépp lu may def moo wax ak yéen ci sama gis-gis sama xalaat jàpp naa ne président Macky Sall mi ñu jiite juróom-ñaari at yi ñu génn ci jàmm wane na ne na njiit njiitu réew senegal a ngi ci jàmm ju mat sëkk senegal yokk na ci wàllu koom-koom Sénégal am na daraja bu yokk ci bitim réew may fàttali président Macky sàll fekk na Sénégal ci jafe-jafe yu tar jafe-jafe yi amoon ci courant bi li ñu daan wax délestage jafe-jafe yi amoon ci gaz bi maanaam mu doon ñàkk ci dëkk bi jafe-jafe yi amoon ci mbënd bi jamonoy nawet wax dëgg li ñu tudde plan ORSEC gëj na fee am maanaam président Macky Sall te gil na askan bi jafe-jafe yu bari yu nu daan dund loolu kenn mënu ko weddi président Macky Sall tëral na programme bu mu tuddee plan Sénégal émergent ñu koy wax PSE programme boobu tegaat na ci yoon bu rafet koom-koomu Sénégal koom bi yokk na jële na ko ci benn yóbbu ko ci ñeent jubbanti na ñi ni téye woon alalu réew mi àdduna si yépp naw nanu président Macky Sall ci fi mu jële Sénégal ak fi mu ko indi tey seen kóolute ak seen yaakaar yokk na ci yoon bi senegal tegu ci gàttal président Macky sàll ci juróomi at yi ñu génn jiite na Sénégal ci anam yu rafet liggéey na liggéey bu am solo ci wàllu jumtukaay yi ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu dimbali néew doole yi ci wàllu jàng ci wàllu gox yi soxla dimbal ci wàllu liggéeyu ndaw yi kenn mënul lim lépp dañuy wax rekk liggéey bi am na solo te ñépp teg nañ ci seen bët man de suma ma gisoon lu ma jaaxal ci doxalinu président Macky Sall dinaa ko wax man jàpp naa ànd ci ak ñi xalaat ci mbiru koom-koomu réew Macky sàll liggéeyal na senegaal juróomi at yi ñu génn waaye nag ci démocratie la ñu nekk ku mu neex mën nga laaj réew mi foofu la ñu toll nanu déglu ñépp ci yar jàmm ak salaam loolu la démocratie woote man nag Ibrahima Macodou Fall ci sama gis-gis falaat président Macky Sall mu mottali liggéey bi mu tàmbale mooy njëriñu senegal wane na ne mot na njiit wane na mën-mën ci jiite réew wane na taxawaayu kilifa bu mot sëkk taxawal na programme buy jëmale Sénégal kanam moo tax may woo sama mbokk Sénégal yépp samay am di jàmm samay xarit samay dëkkandoo bàyyiwuma kenn su ba su wote bi jotee ci kàttanu sunu borom ñu fekke ko ñu sànnil carte Macky Sall ndax mu def ñaareelu mandat loolu mooy njëriñu Sénégal loolu mooy njëriñu askan wi sama yéene mooy ñu falaat ko te ànd ak moom mu àggale liggéey bi muy tàmbale programme boobu mu tëral tudde ko PSE Macky Sall dafa wër ndombo Cees ba nga xam ne li ñu ci séentu ci wàllu koom-koom ci wàllu liggéey liggéeyu xale yi benn gox waru ci mën a ëppale Cees PSE dafa lal njëriñ bu mag PSE baax na lool ci Cees ak li ko wër ci sama wàll sama loxo du jóg ci jàppale xale yi ñu am liggéey walla ñu jàppale leen ñu mënal seen bopp may woon ñépp ñu sànnil carte Macky Sall mooy sunu njëriñ ak njëriñu Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm wasalaam.